ñun ñoo faran mhm. sëñ tuwaawul moroom yàlla na yàlla sàmm kontaan naa kontaan naa mhm. euh, euh, maa ngi gis ni sa euh, sa sa bi mi ngi gën a mi ngi gën di yokku <laughs> et et fait peur <laughs> mais comme xam naa la mhm. Emma dégg nga sama xel dal na tey tey actualité bi je suppose que riche na bu baax waaw j'avais envie évidemment avec ton autorisation ñu wax ci le cas de Mimi danañ ko ko dàq duñ ko dàq l' avenir de Mimi Touré euh, bëgg naa aussi ñu wax ci assemblée nationale bi nga xam ne assemblée nationale bu bees la. Euh, Yewwi Askan Wi ñëw nañu en force nee nañu du ñu may gars mhm. bu cuune xamal leen ni am na ay xale yoo xam ne ñëw nañu te dañu pare li ñuy wax dañoo pare et eh euh, ils vont tout faire pour justement lépp loo ko tegal loo tegal comme projet de loi wala ay proposition de loi et eh ben danañ ci góorgóorlu pour que justement muy leer nañ xaalisu assemblée nationale a doxee mhm. gestion justement Euh, de l'Assemblée nationale euh, administrativement surtout mm. Eh dina dina dina dina leer foofu parce que gars yi nee nañ du leen may dara euh, mm. yàlla a la le problème de Macky Sall aussi mm. Sall euh, parce que dafa am ay xam nga des fois damay gis ay yu may inspiré noonu le mm. matin euh, donc kaw kaw dundin bi dund dund réew mi parce que Macky Sall gis na association yi la démb eh ben bi mu leen di wax ni dégg am il faut que ñu góorgóorlu pour mm. jox na ay ay ay ay ay kii ay ay directives le premier ministre. Mm-hmm. Euh, Amadou Ba pour que ñu def seen kamtalay kàttan ba euh, euh, dundin bi. Mm-hmm. wàññeeku dundin bi dundin bi nan la war a wàññeekoo Salma. ñett yooyu wala mm-hmm. ñeent yooyu ma génn fii. eh bien suñ ci waxtaanee amaana xëy na dina mën a amal. njëriñ parce que je reste persuadé que ni vous êtes des gens. talentueux waaye mi ngi noonu Aliou Sow hier on commencé peut-être le cas Mimi Touré ñu eggali ko rek laataa dem ci Yewwi Askan Wi. eh ben Mimi bërki démb dafa def conférence de presse. Mm-hmm. mu ne euh, dégg nga maam euh, bàyyiwul euh, justement Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. eh ben mais bokkatul ci seen groupe. maanaam. pratiquement boo nee bàyyi naa benn bokk yaakaar est ce que da nga ne man coalition bi bokkatuma ci maanaam léegi man non inscrit la bëggatuma ngeen di ma boole ci li limu euh, benn bokk yaakaar dama bëgg ngeen bàyyi ma ci non inscrit yi comme Thierno Alassane Sall comme euh, Pape Djibril Fall entre autres est ce que euh, loolu mu Mimi Touré def lan moo tax mu war koo mën a def mm-hmm. et puis boo gisee tontu bi ko Euh, le président du groupe benn Bokk Yaakaar à l'Assemblée nationale donc donc donc El Hadj Omar muy maire wu Thiadiaye mm-hmm. eh wax Euh, euh, euh, nee na Mimi démissionné wul. Mm-hmm. parce que bindul benn lettre boo xam ne dafa démissionné. Mm-hmm. mais effectivement Mimi waxul day démissionné. Mm-hmm. li mu wax mooy. man bokkatuma ci euh, Benno Bokk Yaakaar ci groupe bi. Mhm. group bi maintenant est-ce que Mimi Touré euh, dafa con day continuer di toog biir APR wala est-ce que boo démissionné euh, groupe Benno Bokk Yaakaar bi boo ci démissionné boo xasee ba démissionné ci est-ce que ça veut dire que yow bokkatoo ci ñoom définitivement c'est fini. Mhm. moi je pense que ni ci loolu la ñuy tendre. Mhm. la preuve Thierno El Hadj Omar Youm nee na nee nañ leen ñu bari sax ñu ngi créer ay ay ay ay kii ci suuf. pour lobby pour que Mimi ñu nangu au poste député bi et définitivement justement Assemblée nationale. la réplique des députés de Benno Bokk Yaakaar. Euh, la dernière fois pilotée par Adama Fall ils ont dit la même chose. voilà que dafa war a bàyyi euh, député bi nga. absolument mais est-ce que aussi xaarul. Euh, ñu dàq ko pour mu gën a mën a am impact aussi parce que ku ne démissionné nga ci euh, groupe euh, justement benn Bokk Yaakaar mm-hmm. groupe député yi ça veut dire que yow xalaa nga ni bokk toog ñoom mënatoo jëflante ak ñoom pour mm-hmm. mm-hmm. pourquoi muy garder poste député bi aussi sa peut une stratégie par rapport ak yi xew-xew yi nar a xew yi nar a am assemblée nationale ci fan yi di ñëw wala ci weer yi di ñëw parce que tout simplement yu bari dañ ko mën a voter est-ce que moment boobu position am du a jouer sur justement les projets du président Macky Sall Euh, parce que mun na mun na a voter yu bëree bëree bëri mais en général je pense que ni logiquement Mimi euh, a toujours été aux côtés du président Macky Sall euh, xëy mun na d'accord ak moom par rapport à certains choix mm-hmm. mais ci wàllum politique bi je crois que elle l'a toujours assumé la preuve sinon elle serait partie depuis très longtemps mm-hmm. donc peut-être que du foofu lay mbir di jógee wala peut-être dafa toog rek ne xaaral ma xaar peut-être man dinañ ma dàq mm-hmm. dañu bàyyi xel trop ci hypothèse u dàqin bi nga xam ne éventuellement war na mën a nekk ci euh, donc euh, Mimi bu ñu ko génnee parce que bu ñu ko dàqee mhm. dina compliqué dina compliqué trop mhm. fàttaliku leen Macky Sall mhm. bi ko Abdoulaye Wade dàqee <laughs> est-ce qu'il va de créer beneen Mimi Touré wala beneen Macky Sall beneen front parce que Mimi dafa yàgg nekk biir assemblée nationale yàgg liggéey ak Macky Sall. Euh, xam ngeen euh, on n'est pas quand on est premier ministre de la République du Sénégal. Euh, yu bari ëmb nga ko. yu bari téye nga ko. Mm-hmm. quand on a été justement ministre de la justice du Sénégal. xam nga waxu justice dafa bari ay coow fii ci réew mi. donc yooyu bu fekkee ni mës nga fa jaar. Mm-hmm. da ngay nekk donc une personne d'état ou une personnalité d'état si je comme ça parce que mën na doon jigéen wala mun na doon góor. Mm-hmm. bu boobaa li ngay ëmb ci sa bopp. bopp. wax dëgg yàlla boo ko yóbbaalee nar ko xeexee. sa ex mentor. oui peut que du baax ci moom. Mm-hmm. ayca euh, Théo rapidement ñu daal man lenn la équation bi bi may posé mooy c'est-à-dire politique de réseau lu Mimi mën a def. Mm. mooy politique de réseau ndax fu mu jaar station yi mais est-ce que Mimi bu ñu ko joxoon présidence assemblée. Mm. dina def fronde bi. c'est une équation. non c'est une que non. on peut pas xaaral xaaral parce que benn affaire non xam nga loolu. Mhm. donc li may wax jeu d'intérêt la. Macky aussi pënd bu wuree la politique ku nekk aussi benn sàcc ci ñoom ku nekk day gérer intérêt politique mhm. moo tax schéma bi demee nii. et que schéma bi demee nii tey elle la mis euh, il a mis au charbon instant yi même bu nekkee ki elle est seule contre tous. parce que liñ ko liñ ko defloo woon tey gisoo kenn ci biir euh, euh, ci ci gaay yooyu ci biir APR. Mm. ñu ko doon pousse au charbon di ko pousse muy attaqué def ay attaque frontale contre certains opposants ñu ko faral. kon muy loo xam ne mm-hmm. aussi. li ci kanam tamit dina xaw a métti juste là pour compléter Théo ni ko ko bëgg ci laal tuuti mm-hmm. mais euh, juste pour compléter Théo pour mu xam ni euh, euh, léegi mbir mi day doog a door mm-hmm. boo fàttali ko li xewoon ak Macky Sall ci assemblée nationale ñii di ñëw du ñu ñëw léegi tout de suite parce que ils viennent d'être élus ils viennent d'être élus est-ce que dans quelques temps dans quelques semaines dans quelques mois am na ñoo xam ne parce que assemblée nationale moo rey assemblée nationale Théo bu xam ne mooy moo mooy assemblée nationale gën a gàtt ci histoire république du Sénégal parce que après les élections présidentielles assemblée nationale bi dootul amati dootul existeeti donc il faut que nga rappeler wu benn mbir Théo mooy euh, euh, euh, ñii di dem ñii di bëgg a dem am na ñoo xam ne toujours dañuy ànd ak yow. lu ñu tuddee ay am na ñoo xam ne forcément même bu feeñul comme ni ñi àndoon ak Macky Sall bi comme bi ko Abdoulaye Wade di créer am na ñoo xam ne ñi ngi woon biir APR gis nga bi ñu fëlee. Mm-hmm. ay personnes ay ñoom euh, euh, Moustapha Diakhaté Moustapha Cissolo et cetera ñooñu après la ñu génn ànd ak Macky Sall am na ñoo xam ne tout de suite la ko def mais am na ñoo xam ne sax bien après la ñu génn euh, ñëw ak seen ay nit ay mm-hmm. nit ñoo xam ne ay ay ay borom ay borom kii la ñu borom doole la ñu am nañu une certaine sympathie ci dëkk bi bés bu ñu ànd ak moom c'est même pas la surtout que il faut nga fàttali ko benn affaire affaire troisième mandat bi Mimi Touré a toujours été constante là-dessus donc képp koo xam ne da nekk biir APR àndoo ak da ko doon éviter de. Mm. da ko doon éviter pour ñu ko ci laaj de élection yi moom avant élection euh, kii euh, législative. Euh, analyse bi du aborder du nangu aborder eh, question présidentielle question bi du non mais loolu. loolu nangu de avant législative bi du ko doon nangu aborder. ñu bàyyi ko mu terminer. Mhm. oui c'est évident loolu mais du wax loolu du waxtaan bi. waxtaan bi moom parce que loolu xam nga démb sax wax naa ko nee euh, teg xel lañ doon defan tegante xel lañ doon defante. Mm. mais comme tey loolu du waxtaan bi euh, li muy wax moom mooy kaaw avenir u Mimi Touré li muy mm. def ak li mu daan def ak yooyu c'est son avenir nous aujourd'hui qui nous intéresse par rapport à ce qui se dit en ce moment. dans les euh, cinq minutes. mais li mu doon def ak yi mu doon def yëpp. passif bu mu am ci ci ci politique bi. Mhm. ministère de la justice bi mu yore woon mbirum Karim Wade mi ngi ni mhm. jugé nañu ko atte nañu ko ba léegi mënuñoo teg lu nga xam ne sénégalais mën nañu teg seen bët jàpp ne lii poursuite bu normal la woon. Mhm. léeg-léeg dañ lay utiliser nga def le sale boulot beneen affaire bi mooy. assemblée keroog Mimi Touré moo génn assemblée en toute complicité ak ba ci la après topp ay mbirum procuration bu fekkente ne moom jàppoon na ni que elle n'est pas d'accord mais da ngay toog assumer wu vote bi ñëwee nga nga peut-être nga bañ a euh, pour le pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar. askan wi xam ne da ngay assumer sa position aussi parce que 2024 bu ñu jëm nii dafa am loo xam ne opposition bi dañ cee war a bàyyi xel mooy candidat yi pouvoir di créer loolu tamit euh, contre-feu la boo xam ne. amoon na fi 2019 am na ci législative yi dina am 2024 aussi. d'accord euh, maintenant Benno Sénégal. Euh, comment est-ce que comment est-ce que Mimi Touré va faire pour convaincre les Sénégalais loolu mooy wax ji. xam nga tout le monde sait que li nga wax na sànq. question troisième mandat bi à un moment donné Macky Sall saa wax na ko nee na Mimi da ngeen koy bàyyi parce que day dem te ñëw. koo xam ne dañ la jëlee conseil économique social et environnemental nga def sa discours nangoo benn yoon tudd Macky Sall nga delluwaat nekkaat ak moom nekk directrice de campagne euh, yore liste Benno Bokk Yaakaar kooku. imprévisible lañ koy tuddee ci géopolitique man leen leen nag laa laa xalaat moom mooy euh, euh, bon c'est vrai que parce que après a day xaw a compliqué ci réflexion bi mm. mais leen rek laa xalaat moom mooy euh, je pense que ni Mimi Touré ci ci ci ci doxalinam mm. pour le cas par exemple de l'Assemblée nationale je crois que elle a elle a toujours espéré être donc président de l'Assemblée nationale sans doute parce que daf ci déggoo woon ak Macky Sall mm. peut-être que au dernier au dernière minute même laay wax wala aux dernières waaw waaw waaw parce que nee na 9h26 lañ ko woo. yaa ngi dégg donc aux dernières heures peut-être que euh, manipulation yeeg lobbying yi ont fait que ni effectivement peut-être que le président a pensé que ni il fallait qu'il change absolument de fusil d'épaule par rapport à ses euh, à son avenir politique. Mm. parce que loolu yëpp mën na ci jouer mais il faut que qu'on rappelle juste d'une chose c'est que c'est que euh, je pense que ni man personnellement bi bi bi bi ko Abdoulaye Wade dàqee euh, sax waa Benno Siggil Sénégal dañ doon wax lan dañ doon wax ni mun na doon un candidat créé par le pouvoir même pour euh, pour kii sénégalais mais finalement on s'est rendu compte kooku si boppam moo mujjee nekk président de la République mm. je ne suis pas sûr que ça va le cas forcément mais il faut dire que ni euh, li nga wax ni mun na nekk mais mun na bañ nekk aussi surtout que encore une fois ci wàllum est-ce que est-ce que aussi c'est parce réew mënu ko ko assurel et mm. au dernier moment on se rend compte que euh, loolu kese la mën a doon et mënul continuer ak moom bi Aliou Sow parce que ni ko démb gis nañ nag euh, waa yeewi askan bi wala conférence des leaders bu yeewi askan bi def benn janoo ak taskatu xabaar yi donc on rappelle que yeewi askan bi mhm. mooy kujjeek langue politique bi donc ñoom def nañ le bilan un peu de ce qui s'est passé euh, récemment au Sénégal ñeel foofee ci assemblée nationale waaye it duut baaraam ci gouvernement bu bees bi ne président Sall teg Euh, euh, li ñu wax li ñu wax li ñu wax leer na nee nañu euh, léegi au niveau de de de de de l'Assemblée nationale dootuñu mayeti justement mbiri président de la République. dara parce que député yi fa nekk non seulement presque égalité la parce que ay benn ak ñaari député la mm-hmm. preuve gis ngeen ça peut basculer d'un côté ou de l'autre gis ngeen ne kenn xamul un jour bés bu affaire yi caaf xamee mu doon mm-hmm. à. mu xaw a affaire euh, déséquilibre bi tuuti torop euh, entre la majorité et l'opposition euh, dina compliqué torop ndax bu fekkee ne ay ñaari voix ñaari yooyu wala ñett yooyu kenn mun na mun nañ mun d'un côté mmh. ou de l'autre et loolu ce n'est pas bon moo tax en général pour gouverner confortablement il faut une majorité absolue mmh. au moins dina la permettre nga ni bu fekkee ne am na éventuellement ñi mer mmh. di leen mën a di nga xam à le nombre te doo jël yenn risques dépasser nit sax euh, victoire la mm. mais fii nii c'est une victoire vraiment euh, étriquée mm. au point que ni ça craint pour le président Macky Sall lenn kay lay ragal mooy dans avenir très proche mhm. euh, dans les jours à venir wala peut-être les mois coow gi bari assemblée nationale ba nga xam ne blocage day am et bu boobaa naa ko fi wax xaw ma ndax fàttaliku ngeen ko. Mhm. Euh, euh, mooy d'ailleurs Macky wax na ko l'autre jour. mi ngi naan mi ngi mi ngi mi naan mi ngi naan man je ne kenn mënu empêcher ma gouverner normalement. Mhm. mais boobu bu fekkee am na lu ma mosoon wax par rapport aux ordonnances yi nga ma ndax 52 la ah quelque chose comme coow bare. Euh, président la République Sénégal peut gouverner par ordonnance. problème moom mooy euh, ordonnance yi aussi je ko limité. Euh, dina ko def parce que bu demee ba caaf xëm ba assemblée nationale mënatul dox. Macky il est il obligé de gouverner te bu boobaa ordonnance yi rek la mën a utiliser mais ordonnance yi dañ ko limité maa ngi koy wax léegi nii. Mm. c'est je crois que c'est au nombre de quatorze. quatorze mm. ordonnances la am droit def ci année bi. Mm. waaw bu peut-être que ça lui fera une vingtaine d'ordonnances bu fekkee ni loolu moo am xamuma mm-hmm. parce que euh, affaire bi 15 mois moo ko dese en tant que président de la République mm-hmm. beneen problème am na moom mooy euh, euh, biir Assemblée nationale kaw Barthélemy Diaz mm-hmm. ak Ndiaga Diouf bi gaa ngi ciy wax nee ñu aussi Macky Sall daf ko bëgg da ko bëgg dafa dafa bëgg li daloon syndrome mu Khalifa Sall moom la bëgg a def Barthélemy Diaz donc gaa yi artu nañ ko si nee nañ ko il faudrait qu'il fasse extrêmement gaffe parce que duñ ko may dara te du génnee Barthélémy Diaz euh, béréb boobee euh, di mairie de Dakar encore moins euh, donc son poste de député à l'Assemblée nationale parce que boobaa ça veut dire que Barthélémy Diaz dootul amati dootul couverture par rapport à son immunité parlementaire mm-hmm. Mm-hmm. c'est ça ah ils ont même dit que dañu ñoo wëyal li nga xamante ni moom dina dina compliqué dina dina dina compliqué torop loolu yëpp faisant ça fait que ni effectivement seulement on ne sait pas ce qui pourrait se joxe Selbé Ndom mais mais mais dina dina compliqué trop parce que parce que kenn xamul lan moo nar a xew parce que système li nii xew fii au Sénégal député yi presque ñu tolloo tolloo nombre au niveau de l'Assemblée nationale mm. lii musul am ci histoire République du Sénégal mm. donc euh, question bi kay mooy euh, lan moo war xew euh, bés bu caaf xamee surtout que am na ñoo xam ne peut-être sax ñi ngi biir Benno Bokk Yaakaar mm. te d'accord uñu peut-être ak Macky Sall ci yu bari yu muy def ñooñu tamit bés bu mi di gën di bu fekkee ni Macky Sall wax na ne day nekk candidat. wala du nekk candidat moment boobu yu bari dina xew di nga gis ñoo xam ne benn ko parce que naan de toute façon ay ñetti weer moo ma dese. wala wala wala huit mois moo ma dese ci ci kii bi sama yoon nekku ci je vais assumer mes ñi nga xam ne aussi dëkk ñu ay député ba pare doon des grandes voix. comme ñoom ay maître El Hadj Diouf ñooñu fan la ñu mais El Hadj d'accord. troisième mandat bi est-ce que du dem fël euh, la euh, langaamu ci langaamu. donc nga am façon de parler mais ci côté ay ñoom Mimi Touré wala yu demee noonu lan moo nar a xew. qu'est-ce association féministe yi Mimi Mimi Touré. Mm-hmm. <laughs> doo xam lu ñu bëgg àdduna bi aussi doo xam lu ñu bëgg est-ce que bon man c'est aujourd'hui vraiment euh, Walf Quotidien m'a beaucoup inspiré parce que li ñu wax yëpp je suis bravo hein Thialy Senghor euh, parce que yu graaw yu graaw la ci wax par rapport ak mm-hmm. euh, l'exemple qui a été donné par rapport a Ellen Shirley Johnson de de de de comment dire du Libéria mm-hmm. boo xam ne wax dëgg yàlla àdduna bi lobby yi surtout les lobbies féminines mm-hmm. ñoom ñoo ko gën jàppale pour mu taxaw nekk président la est-ce que le loolu mën na am hypothèse boobu au Sénégal comme ni ñu koy waxatee Euh, loolu yàlla kese moo ko xam mais euh, Yewwi Askan Wi à travers Déthié Fall aussi démb annoncé nañ ce 5 octobre mhm. euh, lancement officiel lu réel mu di mhm. réseau des élus locaux pour contrer un peu l'AMS parce que nee nañ ko tëddeewul njaaxanaay ci ay doxalinam oui tout à fait loolu xam nga njëkkoon nañ ko wax sax il y a quelques mois bi tout suite bi élection locales locales bi ñu gagné ba pare mhm. parce que ils considèrent que ni ñoom gisuñu seen bopp ci mbir de dedans booy élection jotee ñu def ñu def élection fexe ba convaincre sénégalais yi. Mm-hmm. Euh, par rapport euh, ou même les maires. Mm-hmm. les élus locaux euh, ba nga xam ne ñoom dañ leen di voter pour que ñoom aussi ñu mën a récupérer euh, justement euh, boppu AMS. Mm-hmm. mën ko contrôler moo gën ñu def un truc parallèle parce que bés boo bés bu ñu fi nekkee aussi ci nguur gi yàlla def na peut-être ñu téye nguur gi. bu boobaa qu'est-ce qu'ils vont faire nu ñuy def ak AMS. boobaa est-ce que dañuy continuer réseau boobu wala de de di fa xeex récupérer. récupérer ko euh, euh, parce que ëllëg ñoom mun nañ nekk ci nguur gi bu boobaa euh, ren bi ngay wax noonu. xam nga mu tudd ak ak ak ak réseau des élus mm-hmm. ak AMS dina compliqué te day créer benn espèce su foutaise boo xam ne peut après dina déséquilibré. mooy réseau des élus locaux bi dina am les présidents des conseils départementaux. waaw mm-hmm. mais tout à fait mais xam nga mun nañ xeex sax jéem a récupérer affaire bi ci biir à l'intérieur quand ils justement l'AMS un mm-hmm. doon ay projet de société yoo xam ne war nañ ko mën a ci au niveau des communes et des départements. Mhm. est-ce que dañuy def plagiat ah? parce que réel am na syndicat bu tudd réel pour ñoom ñu xam ko. Mhm. am na syndicat bu tudd réel pour un problème de sigle. Mhm. est-ce que du andi jaxasoo. nañu xoolaat aussi première chose ci affaire boobu. deuxième chose am na loo xam ne dafa am euh, pour mutualiser le force les maire parce que développement local mënoo séparer mairie ak état démembrement la d'autant plus que plusieurs projets am na fi ay PACASEN. les fonds de concours yuy wàcc. donc yooyu yëpp mënuñu mënuñu mënuñu bu ñu defee à à à deux ban temps la ñuy am ñoom seen récépissé. Hmm. pour ñu reconnaitre leen. loolu yëpp ce sont des questions yoo xam ne ne. Euh, moi, moi je crois que pour pour une du ñu leen reconnaître hmm. du ñu leen reconnaître parce que mënul jàll ndax euh, wax nga ko lu am solo la euh, kii localité yi hmm. ay ay démembrement wu état état état la ñu hmm. te état bi maanaam état lañ fi toogal sauf que tooge toogin boobu ci ay vote lañ la ko yoon jaarale pour ngeen toogal état yi donc dañuy nekk en lien direct avec ces localités te am na yoo xam ne gis ngeen Macky Khalifa Sall bi mu soxlawee des milliards pour def Dakar defar Dakar état bi moo xam ne mooy garanti moo ne ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko garanti pour que mu mën a leb une certaine somme un certain nombre de milliards pour mën a defar Dakar donc c'est une façon de l'empêcher de de mais bu ñu ko defee aussi te état bi reconnaître leen te état bi dafa am ku koy jiite bu fekkoon ni dafa am une convergence entre l'état ak ak ak ses une majorité des élus locaux bu boobaa dina gën yomb mais comme état bi toujours leen contrôler la preuve mairie bu leen neexee bu tolloo ci benn niveau am ay difficulté euh, mairie bi état bi mun na ko mun na ko mun na leen kii comment on dit euh, déléga mun na def une délégation spéciale mm. donc euh, état bi mooy toujours contrôler localité bi bu tolloo ci benn niveau de difficulté boo xam ne dafay am entre l' ak les maires bu mhm. bo ou une maire euh, bu boobaa état bi mooy gagné parce que euh, day day dafay yóbbu directement en délégation spéciale donc ça ne tiendra pas sur grand chose AMS am na ay mhm. maire opposant bu ko fàttali d'accord voilà c'est ça voilà aussi euh, mhm. bi Aliou Sow oui dernier point bi c'était quoi déjà je crois que c'est ah hmm? mesure Macky Sall voilà mesure yi Macky Sall jël merci merci Khoudos eh Euh, nee nañu bon ñëpp constaté nañu dëkk bi dafa dundin bi dafa métti les gens sont fatigués xam nga euh, lekk bi dafa métti ndox bi difficulté yi fay loyer bi les loyers sont très chers au Sénégal Sénégal dund bi day gën a cher euh, te am te Sénégalais amuñu dara. Mm. yaa ngi dégg seen revenu yi baaxul seen pouvoir d'achat demeewul noonu donc c'est très compliqué Macky Sall a essayé de réunir justement euh, nu mu tudd les. ñi doon waxtaan ak Senghor Abdoulaye <laughs> Wade. association yi ñoo xam ne bon je sais pas pour leur waaw jox ay conseil ñaata at ñu ngi fi. Mhm. doo gis ñu def assemblée générale de renouvellement de leurs instances. Mhm. ñooy nekk fépp. fépp fépp foo. mais mais mais euh, Momar Ndao euh, je vous rappelle à moins que sa euh, ça ça ait changé entre temps mais mooy patron wu Ascosen te Momar Ndao je crois que il a un bureau. au niveau au niveau du du palais de la République. te Olof Ndiaye dafa ne ku yor ëmb sa sànqal et eh ben ëmb sa sutura. voilà dina compliqué trop donc donc donc Macky wax noonu est-ce que dina dina parce que ay directives la jox Amadou Ba pour que mu def kam talaay kàttanam ndax vie au Sénégal gën moins cher je crois que ni li ñu war a def dëgg-dëgg euh, mooy euh, jarul woon bon évidemment mun na leen recevoir waxtaan ak ñoom mais mm. euh, c'est d'une évidence jox leen ay conseils yedd leen tat kii leen ta tàng tatagal leen et cetera tout ce que vous voulez mais je crois que du am njëriñ trop à moins que gars yi yóbbaale ci ay conseil yu président de la République mm. mais franchement concrètement dara du ci mën a dem li ñu war a def kay moom mooy comment faire question bi ñu waroon laaj ci Sénégal mooy nan la ñu war mën a def bi gën a moins cher parce que mm. bu ñu demee ni dans dix ans dundin bi pouvoir d'achat dundin bi day mel ni cherté la vie day mel ni comme en France euh, wala wala les pays européens et ça c'est pas bon dañu dem ba xam ne un loyer un deux pièces en France mm. euh, euh, même chose bi ngay fay que da ngay fay taxe ah, au Sénégal man li ñu war a def kay xam nga mooy lan mooy man je pense il faut ñu il faut il faut que il faut il état bi dem récupérer xaalis fi ko war a récupérer redistribuer ko état bi nan la war a def loolu mooy question yi mm. est-ce que est-ce que état fan nga koy jëlee mooy ci ay taxes. Par, par, pratiquement regardez l'année dernière plus de 500 milliards de francs CFA la ñu def ay exonération à certaines entreprises pourquoi ñuy defar exonération 500 milliards boo ko amee nga def politique logement bu baax créer ay ay ay ay ay ay ay immeuble ak ay appartement dëkkaloo fa ay nit hmm. forcément concurrents yi nga xam ne ils sont dans le euh, dans dans privé et eh ñoom dootuñu amati choix ils vont être obligés de baisser de baisser leur leur leur, leur loyer parce que xaalis il faut nga jëlee ko fenn pour mën a créer boo gisee projet cent mille logements yi ñu doon wax noonu. Euh, mm-hmm. gaawul euh, même su fekkee ñoom ñu ngi si def ay effort c' parce que ils n'ont pas euh, assez d' mm-hmm. ministère de fo moni ñu koy jox moni bi doyul. te li ñu war a def mooy fexe ba récupérer. Mm-hmm. xaalis bi feneen pour récupérer nag on aurait eu le temps mun ngeen leen wax ay niches yoo xam ne mën nañu ko récupérer. on ne paie pas des impôts au Sénégal il y a beaucoup yoo xam ne li ñuy def ay.